très scolaire chaque année l'histoire se répète ak ay jafe-jafe yi nga xam ne enseignants yi chaque année moom la ñuy rencontrer loolu dëgg la parce que système éducatif bii moom feebaru màggat la foo laal day metti euh, gouvernement Sénégal système éducatif bi intéressé wu ko li ko intéressé rek mooy na école bi di tëj di tijj jafe-jafe yi di fi nekk muy naxante ba mu tëj bu tijjiwaatee ñu fekkaat fa jafe-jafe yi comme ni nga ko waxee loolu moom mu nguur yi fi nekk depuis 1960 ba léegi defar njàng mi intéressé wu leen tëralinu njàng mi dèjà wax naa sànq ne dëppoowul ak sunu aada ak sunu cosaan Sénégal rek moo am système éducatif boo xam dañ naan la yow ab jullit nga wala ab chrétien nga waaye sa diine bu la ko kenn jàngal ci école publique bi Sénégal rek moo ne ci lool sukkandiku nag ci ay waxi tappale ay Sénégal c'est un pays laïque ci tappale comme si la liberté de conscience dañ koy tege ne bu fekkente ne laïcité la ñuy wax loolu amul ci àdduna bi kon ñun li war a njëkk def mooy soppi suñu système éducatif bi loolu mooy premier enjeu yi parce que école bi c'est une école coloniale maanaam tubaab bi moo ko fa bàyyi pour ñu defaral ko ay nit ñoo xam ne dañuy xalaate comme moom mu mën a gën a euh, lawal ay intérêt ci réew mi ak réew yu mel ni Sénégal loolu mooy système éducatif bi kon nag xotti ko sànni ci àll ba defaraat suñu tëggaat suñu système éducatif bi bopp boo xam dañ koy dëxëñ ci suñuy aada ak suñuy cosaan ak fi ñu bëgg a dem kooku dafa jot sëkk mais kii fi nekk di jiite réew muy président Macky Sall du moom moo koy def donc loolu mooy première jafe-jafe beneen bi mooy da ngay ameel jàngalekat yi ay rappel doo leen ko fay ah wala boo leen ko fay da nga koy xàppati ci ay impôt di jaay doole ah ci digg bi ngay séddoo impôt euh, euh, li nga waroon a fay rappel jàngalekat bi ba jàngalekat bi su jëlee rappelam rek xolam jeex. mais mooy ay actes yi nga ko war a jox ay actes administratifs ay avancement intégration validation ñu ñàkk fayda sax mën nañu ko jox dem yóbbu leen formation sax mënoo ko def maanaam yóbbu jàngalekat ñu former leen 3000 enseignants près de 3000 enseignants nga xaar ñu yóbbu leen formation kenn yóbbu leen formation wala nga créer leen ay ay statut yoo xam ni ay statut jaay doole la tudde leen ay décisionnaires alors que ñu ngi def le même travail que les autres boo leen waree signer seeni acte administratif jël sa temps bu la neex bu dee dañoo jàll seen diplôme boo demee ba signé ko heure bu la neex ne date ma ko signé lay jël effet di jaay doole di def lu leen neex di leen xañ seen àq ak seen élèves ñoom jàngalekat yi ba tout le temps ñuy mer ba tout le temps ñuy taxaw di xeex ba mu am ay mbëkkante ci biir école bi kon kooku état boobu la sénégalais yi war a taxaw wax dëgg gis nga réew mi bu ñu bëggee réew mi baax fokk ñu tàggat suñuy doom d'abord kon ni ko waxee sànq soppi tëralu njàngam tàggat leen ni ñu ko bëggee mais tamit déggoo ak jàngalekat yi ci li nga xam ne moom mooy tax jàmm am ba xam ne ku ci nekk li nga xam mooy sa ak sélève daan la ko jox parce que jàngalekat yi gàcce ngaa laa ñu maa ñoom mais dañ leen di exploiter parce que salaire yi ñu leen di fay dafa tuuti par rapport ak salaire yi ñuy fay yeneen secteurs yi te loi bi tënk liggéeykatu nguur gi waxul loolu loi bi dañu ñi yemle ay ay ay ay euh, diplôme yi leen recruter nan yemle ay indemnité pas ñu yem ay salaire me nan yem ay indemnité mais état bi respecté wul loolu di jaay doole di seet ñi ko neex jox leen ñi des mu beddi leen muy jàngalekat yeeg ñu mel ne mais loolu tamit du jur jàmm loolu moo indi li nga xam ne moo tax suñu système bi du dem. mais aussi est-ce que tweet du jàngalekat yi parce que bu ñu grévé chaque année même phrase bi day revenir noo respect des engagements te non respect des engagements boobu da gis ñii dañuy jàngale ñi suivre grève ñii bañ a suivre. non loolu am na la taux de suivi ne peut pas être à 100 pour parce que loolu moom réew moo mën a dem amul lenn lu ñuy def mu nekk à 100 pour cent loolu amul. loolu moom pour mu leer loolu amul ci benn réew amul ci benn secteur 100 pour cent amul mais nag paralysé nañ fi système bi ci paralysé yoo xam ni yu mucc ayib la mais loolu euh, li li muy wane rek mooy te ñun fu ñu paralysé système bi rek mooy danoo ñàkk pexe parce que jàngalekat yi bu ñu sañoon grève du am kon mënta nekk ci ñun muñ bu ñu nee ba ñàkk pexe rek bañ gis ni jaay doole bi ëpp na ci la ñuy taxaw xeex te ren ji ci lañ nekk jaay doole bi ëpp gouvernement bi day salfaañe suñu ak suñu yelleef lim warloog ñun dara la ci def secteur boo ko mën a jëlee nag day jaay doole waaw léegi nag bu ñu demee ba ñun ñu xam ne lii lañ mérité selon loi bi nga xam moo tënk liggéeykatu nguur gi ñu xañ ñu loolu ñu mérité mais c'est normal ñu taxaw xeex loolu la ñuy def ñun defuñu leneen maintenant nag loolu ñuy def defuñu ko pour yàq réew mi parce que ñun suñu ndam mooy école bi dal école bi jàmm am fi ba ñu mën a tàggat xale yoo xam ne ëllëg dinañ mën a yore réew mi ñun loolu mooy suñu ndam waaye nag bu dee ñun nguur gi moo ñuy provoqué lépp li nga xam si sunu droit la mu xañ ñu ko te ñun ñuy def suñuy devoir chaque jour kenn gën te fonk liggéeyam jàngalekat lépp la bu demee këram sax du mën a am temps waxtaan ak waa këram wala euh, temps bi bu doy parce que ma ngay préparer wat kuuram bi mu war a xëy defi waa kon jàngalekat boobu dañ ko jox ak xam ak yelleef réew yu développé yëpp loolu lañ def dañu miser ci qualité njàng mi pour mën a dem mais miser ci qualité njàng mi mooy nga jox jàngalekat yi seen gëdd bu ñu amee seen i kayit nga jox leen ko. former leen à temps boo leen former pare nga reclasser leen bu dee ñi nga war a reclasser euh, dugal leen ci biir fonction bi jox leen seen àq ak seen yelleef bu ñu amee seen i rappel nga jox leen ko te doo ko xàppati da koy impôt de sàcc seen xaalis bu ñu amee seen i prêt DMC nga jox leen ko parce que loolu ay acquis yoo fekk la maintenant bu ñu euh, waxtaanee ni nañ tiri ni ñuy fay liggéeykatu nguur gi ba ab cabinet privé def ko ni nii la ñuy jaaye doole li euh, jàngalekat yi nga ni léegi kon man loolu dinaa ko def di tendeefal nangu woo ko def di jaay doole mais ba noppi jël ay corps yoo xam ne da nga leen a stigmatiser ba noppi nag jël ministère éducation nationale teg fa ay retraités kese mais nanguwoo euh, euh, teg fa enseignants yi nga xam si ñoom ñoo méritant ci beaucoup de d' aspects je peux donner l' de euh, de l'EPS nga xam ni ñoom ñoo koy diriger ca ministère éducation nationale mais ñu sax ay ñu bëri ñoom duñu sax ay professeur xam ñu dara ci sport xam ñu dara ci discipline bi yooyu yëpp di ay xeeti tappale yoo xam ni. ñu ngi koy def mais jàmm mënta am ci dëkk bu mel noonu loolu moo tax ñun suñu njàng mi pëccxoo bi ci am ak grève yu métti yi ci am ak coow li ci am li ko waral mooy nguur gi moo respecté wul jàngalekat yi nguur gi moo respecté wul sénégalais yi nguur gi moo respecté wul école sénégalaise bi lii mooy suñuy jafe-jafe. ministre bi dans tout ça est-ce que xalaat ngeen année bi mu changé stratégie ak seen grève yi ngeen def yëpp. mu tëddee ci commune ministre bi moom man wax naa ci li ma doon wax ba pare ministre moom mënul. moom yàlla defu ko mu man maanaam moom wax dëgg yàlla même bu bëggeet munul comme moom bu bëggeet munul kooku man mënu maa xaar ci mu benn résultat mais it ki nga xam ne mooy kilifaam amul gis-gis ci njàng mi bu tax kooku mu mën koo dimbali mu dem kon jàpp naa ne ki nga xam ne mooy dogal mooy président de la république mooy wax ban politique éducative la bëgg ci réew mi mooy imprimer une dynamique moom ci boppam parewul pour defar njàng mi pour mu baax kon mise bi mu fi teg nii rek la mën a am mooy ministre boo xam ne moom xamul sax enjeu wu njàng mi mooy ministre boo xam ni lu mu fi gën a yàgg njàng mi di gën a yàgg kon nag man kooku aw ma lu ma ciy wax wax dëgg yàlla man li ma jàpp rek mooy jot na pour réew mi nag ñu jël seen responsabilité parce que réew jàng ak jàngale moo ko yor boo amee njàng mu baax day tax li la métti sa penc mi yëpp mën nga ko faa jëlee bu nu amoon njàng mu baax tey jii du ñu am ay sénégalais yoo xam ne comme ni mu mel nii nga xam ne dañuy am une administration très corrompue ah nga xam ne actuellement ñi école bi génne du ñu am du ñu leen tàggate noo xam dañuy am benn euh, patriotisme buy tax tey jii kenn mu leen tax a dugal euh, euh, seen seen loxo ci biir guerre parce que dañu leen tàggat fa ñu leen war a tàggate parce que école du rek joxe xam-xam nit ki da nga koy jox xam-xam ba noppi yar ko mais ban yar bu dee di danga ngaa da ngaa am diine la yar yaru diine waaw tu as au Sénégal des musulmans et des chrétiens donc ñun ay ñu ëpp ci ñun. donc au moins quatre-vingt-dix-neuf pour cent danoo am diine noo am ngëm-ngëm. intéressant dernière question rek avant ñuy tëj pàcc bi cinq mille enseignants yi nga xam ne dañ leen recruter ñoom fu ñu toll affecté nañ leen waaw euh, cinq mille enseignants yi moom ku ne déggoon na li ma ci wax déjà ci tappale yi ci amoon mais euh, ba léegi ñi nga xam ni ñu ngi leen war a dolli mooy ñi amoon diplôme professionnel te jëluñ leen ñi ngi xaar pour ñu wax ñu létt leen wala ñu firi leen ñoom it ñi ngi xaar mooy diplôme professionnel yi ñu lese woon en rade. selon les critères boobu tam ñooñ ñu ngi xaar mais même ñi nga am sélectionné nañ leen ñu ci ëpp ci ñoom ñàkk nañ seen poste yan amoon ci privé bi parce que mais boo dee jàngalee ci école privée ñu yëg ni état bi jël na la école privée bi da lay remplacer léegi ñoom ñëpp ñu ngi leen remplacer ñu ngi toog amuñu salaire ñu yor seen njaboot ñu ngi toog tumuranke bés mu nekk man ñu may wow ne ma léegi SG ñun kañ la ñuy génne suñu ordre de service yi nay affecté alors que ñoom gouvernement bi ñoo ne woon. surtout le ministre de l'éducation nationale moo taxaw ñëpp di ko dégg mu ne balaa école ubbi dina affecté ñi nga xam ñoo am seen diplôme professionnel ñi ci des it buñ paree formation rek dina leen recruter léegi ñi amoon diplôme professionnel te ñu recruter leen ci 5000 yi ba léegi nii kenn affecté gu leen OS bi génn ji nga xam ne tamit euh, ñoom lañ doon formé pare nañ seen formation actuellement ñi nga xaar ñoom kenn affecté gu leen mais loolu moo lay woon encore tappale am ci ministère bi te loolu li ko lal du leen dul soxor parce que bu leen teelee affecté dañ leen waroon a fay mois octobre. ak comme ñu ngi ubbi euh, le 11 octobre bu ñu leen affecté woon avant ñu dem jël service dañuy may man dañ leen di fay fay le mois de octobre seen salaire fay leen la mois de novembre actuellement nag soxor tax na danoo bëgg yéexal ko ba no ba ba euh, ba novembre bi sori bu ko defee bu ñu leen yóbboo bu ñu jëlee service duñ leen fay octobre duñ leen fay novembre loolu mooy tappale yi alors que école yu bëri ñu ngi am problème mu jàngalekat donc loolu nag ñu ngi wax ministre de l' nationale encore une fois na génne oesu jàngalekat yi parce que sonn nañ danoo yore seenu njaboot daan am ay salaire salaire yooyu yëpp amatuñ ko parce que danoo ñoom dañ leen a dàq ñoom ñëpp ci école yi doon jàngalee kooku jaay doole la et loolu c'est inacceptable j'en profit également pour demander au ministre de l'éducation nationale Mamadou talaa mu wane ne moom mooy ministre bi li xew ci école bi mënatul a continuer ñuy politiquer école bi ku nekk di wut ay cahier di def turam di jël ay sac di def ay ay ay photom ñuy def ay tura ki photo ak ay ay réalisation ci kay yi xale yi di jàng ci école bi loolu politique la politique politicienne kenn waru ko dugal suñu école bi bërki démb la xew ca Ziguinchor mooy ñu jël tenue euh, élève u lycée Djignabo dem def fa t-shirtu APR dem jël couleur APR yi dem def ko fa di jéem a làqatu daal ñu def euh, bopp fas bi ñu def fa bopp ñay bi nga xam ne boo xoolee day nuroog bopp fas bi ay tappale nga xam ne ku ko xool rek sa xel dem ci APR léegi loolu da ko war a arrêté moom le ministre de l'éducation nationale parce que ci élection 2019 bi je me rappelle bien turu benn candidat bu tudd Ousmane Sonko moo feeñoon ci benn épreuve composition au lycée Aoutsane à à Bignona IA bu Ziguinchor jël décision euh, sa euh, jële fa proviseur ba jële fa censeur ba jële fa surveillant général ba parce que nee nañ benn turu ab candidat moo feeñ ca marge ba nekkul sax ci biir épreuve bi loolu moo doon donc kon pourquoi ñu mën a def loolu ca Ziguinchor tey au lycée boo xale yi lycée boo yëpp ñu nar leen a jox ab t-shirt boo xam ne ab Lacoste boo xam ni couleuru APR moo ci nekk mu leer nañ même logo APR bi mooy seen fas bi seen bopp fas bi ma nga ca parce que nañ ko defee mooy ab euh, bopp ñay lañ ca def nga xam boo ko xoolee du amul différence du bëri ak bopp fas bi ciy tappale kooku le ministre de l' éducation nationale doit sortir une note circulaire damay wax Mamadou Talla ni ko respectel Sénégalais yi génneel not circulaire pour demander ñu retirer euh, cahier yi nekk ci école yi yin def ay propagande politique ak euh, lépp luy jumtuwaay ci école bi ak lacoste boobu nga xam si ma ngay ma nga ñuy waaj a séddale ca lycée Djinnia boobu nga xam ne actuellement jàngalekat yi nekk ci région bi yëpp loolu da na a metti na génne note circulaire buy tere loolu naam couleuru euh, euh, lycée Djinnia boobu beige la mais man xam naa ban beige la woon beige bi la donc du woon marron beige bi donc nag bii maron beige lañ dem jël dugal ko ci defare ko tisetu xale yi Euh, benn lakos pour jox leen pour ñu sol ko ci contexte électoral kooku affaire jaay doole la te loolu affaire yàq njàng mi la parce que njàng mi waruñu ko politiser kon li may demandé Mamadou Talla mooy jël ay responsabilités am génn note circulaire envoyé ko IA yi ak IEF yi ak chef d'établissement yi wax leen ni képp ku fi def lu nuru politique muy t-shirt muy lakos muy kaye muy sac muy lu mën a doon xeetu propagande bu mu mën a doon bu mu dugg ci école bi loolu la ñuy xaar ci Mamadou Talla pour mu tëdd njaaxaanaay wane ne école bi moom mooy kilifa gi mais waruñoo taxaw di seetaan sunum njàng ñu koy yàq. d' accord à la limite coow li ak pëccëxoo bi c' est partout parce que bu ñëwee aussi ci politique pour dernière partie bi gis nañ ne mairie bu dakaar xëccoo bi métti na liste aussi ñuy rejeté pour élection locale yi doy na waar. waa man dama gëm ne élection xëccoo mënu cee ñàkk élection ak xëccoo ñoo ànd mais li am solo mooy su xëccooy am na am ci yoon. bu mu am ak jaay doole bu mu am wate taxas boor bu mu am jàppale benn candidat bàyyi beneen man loolu rek laay wax ne bu ñu ko respecté le jeu démocratique ñu respecté ko respecté la loi électorale du am benn problème mais loolu lañ respecté wul d'abord jàngat bi may njëkk a def mooy man dama ruus sax ci préfet yi ak su préfet yi nin doxalee ci dépôt liste yi quoi da ngay ruus une administration bu mel noonu bu dee Sénégal moom la moom la bëgg a demee quoi nan ngay nekkee préfet yow nekkal fi administration bi nekkal fi ñëpp sa fulla war na laa may yow doo nga tëdd nga nga nga tëdd njaaxaanaay ba ñëpp muy kujje gi muy ñu na ci nguur gi doo par parloo mais dañoo gis ay préfet yoo xam dañoo par parloo nga ñëw boo xoolee li xew rek war na laa woon ni par parloo am na rejeté nañ list yu bari ci coalition yëpp ba mu des bennoo Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar amul benn listam bu ñu rejeté ku leen jege sax couleur bu ndaw alors que ñeneen ñi am nañ couleur yu nuróo carrément te kenn wax ci mais Benno Bokk Yaakaar ku def lu nuróowul ak moom sax ñu da ñu ñu ñu dindi ñu dindi say euh, ñu ñu ñu préfet bi daal lay tontu ne la yow rejeté na sa pour won la ni préfet yi nañ gëm seen bopp commandement territorial wul ñu fi nekk pour di jàppale nguur gi ci période électorale loolu du seen rôle loolu c'est extrêmement grave et c'est à dénoncer avec la dernière énergie la deuxième chose la justice ne doit pas accepter d'être instrumentalisée je comprends encore une fois comme ni ma ko comprendre woon mais tey laa ko gën a comprendre li juge dem bindoon ni je démissionne d'une justice qui a démissionné il faut ñu respecter ñu justice mooy réew instrumentalisation justice kenn waru ko fi nangu c'est inacceptable te loolu lañ gis ci dossier Barthélémy Diaz bu ñu nan la ñoom même bu ñu ko doon sax war nañ ko defee neneen bàyyi ko ba mu déposé le mais nga daal koy jox convocation ne ko dañ lay woo le novembre loolu mooy lan man nag li may wax Barthélémy mooy na jël responsabilité mais du Barthélémy kese ñim àndal ci politique bi muy Yewwi Askan Wi ak képp koo xam ne dëgg rek moo la ñor ci Sénégal muy la société civile ñi nga xam si dañuy taxaw ci dëgg pour encadrer les libertés parce que c'est ça le rôle la société civile bu ñu bëggee jaay doole nit da ngay encadrer yow la société civile la les libertés donc ñëpp nañ boole doole ji jàmmaarloo ak nguuru Macky Sall dafa jot sëkk fippu dafa jot na Sénégalais yi fipp parce que Macky Sall li muy def jaay doole la jaay doole bi mënta continuer mënoo nekk yore lépp contrôle administration bi préfet yi di la jàppale di def lu leen neex di rejeter liste jàmbur yi foo yaakaar ne nar nga fa am euh, ay jafe-jafe ñu rejeter la liste yi la arrangé wul ba noppi di utiliser justice teg également pour faagaagal ay ñoo xam ne tiit nga leen que dama lay si ay sondage moom am yoo xam ne palais de la république ñoo ko def palais de la république def lu na ay sondage yoo xam ne xam nga lu moo ne mooy ci dakaar Khalifa Sall reste toujours leader maanaam moom moo jël pee ci sondage ku ca topp Barthélemy Diaz kon jàpp naa ne loolu lañ tiite Barthélemy comme Khalifa bokkul kon Barthélemy mel ni ci kanam parce que ñoom Diouf Sarr la ñu yore Diouf Sarr moom wóor na leen ne à part Yoff mënta gañe Yoff la mën a gañe mais mënta gañe feneen bu fekkee élection jaar na Yoff léegi nag dañ ko bëgg a ubbil boulevard ubbil ko nag danoo defi pexe pexe pexe yu def mooy ñi jéem a invalider yenn candidature yi ba noppi nag wutal ko ay candidats yoo xam amuñu benn ambition pour ville de Dakar maanaam danoo nekk am euh, euh, candidat rek pour la forme moi je suis désolé je n'ai mais la candidature de de de de Wallu à Dakar n'est pas une candidature sérieuse dañu waxante dëgg rek parce que wax dëgg yàlla moom euh, bu campagne bi commencé sax nit ñi daan gis ni la candidature de Wallu amul benn sérieux bu ci am boo jëlee également ñeneen ñi li ñu bëgg mooy pàcc pàccee voies yi pour ubbil benn boulevard la pouvoir pour mu jël mairie de Dakar loolu lañ bëgg moo tax ñu bëgg def émiettement des candidatures bu ko defee léegi dañuy dañuy ubbil benn boulevard parce que comme raw gàddu la ñu yaakaar ne bu ñu defee loolu léegi daañ mën a permettre ñoom seen candidat mu jàll mais may wax Dakar waay que bu ñu nekk ay dof élection yii nu jëm ñaari candidat moo am pour dakaar muy ay candidature sérieuse muy candidat wu Benno Paccoo réew mi nga xam ne actuellement nee nañ Diouf saar la ak candidat wu Yewwi Askan Wi muy Barthélémy Dias ñaar ñooñ ñooy mbëkkante ñeneen ñëpp c'est des candidatures de diversion loolu laa gëm man ku may mere mais bay boo nga mere ma parce que man damay wax li ma sama akulaay taala te li may wax ni képp koo xam ne dëgg nga xam nga ne noonu la demee actuellement yi des pour divertir les Dakarois pour éclater les listes pour permettre à ce que ñoom nguur gi comme dinañ defi tappale yu bari pour seen candidat ñu yokk ay chance pour mu gagner te ñoom ñoo la gën a xam ne ci sondage yi moom seen candidat boobu jegewul sax Barthélémy Diaz donc loolu moo tax ñu ragal Barthélémy maintenant nag aujourd'hui il faut réew mi ñu waxante dëgg ñu jël une administration moom si partout euh, mi ngi mi ngi mi ngi rejeté liste su opposition bi forclusion partout tout simplement regarde ce qui se passe à Saint-Louis ñu gis ni Mansour Faye mi ngi en difficulté parce que goro Macky Sall la ñu ni léegi nañ éliminer les les listes yi nga ñoom ñoo ko mën a gañe c'est-à-dire nañ dindi euh, euh, listu Yewwi Askan Wi nañ dindi également euh, Ahmed Fall Braya bu ko defee léegi ñu ubbil ko boulevard pour mu gañe mais loolu c'est pas sérieux loolu c'est inacceptable man li ma gëm mooy xolal de dans dans dans certaines am na opposition bi bi ñu yegsee minuit jëlagul mais bu minuit jëlagul kër ngay déposer am nga droit rectifier yow da ngaa déposé bi ngay déposé ñun la noonu fi am na erreur war naa yokk ñaari nit waaye yokkoo ko ci nga ne non maa ngi ñaari nit même ma yokk nga ne ma non non doo ko maa yokk te xam nga loolu wax dëgg yàlla nguuru Macky Sall ne muy yàq réew mi amul benn nguur bu commencé yàq Macky Sall mi ngi yàq réew mi de manière extraordinaire et j'en profite pour dire au à à nos chefs religieux comme bu dëkk bi tàkk tàkkee ñoom rek ñoo mën a tax ñu arrêté ñu ngi ñaan xalif généraux yi nan wax lii ma gis jujub jàmm président Macky Sall jaay doole bi mu bëgg def ci élection yi bu ko bëggee jaay doole réew jafe-jafe dina fi am kon nag man maa ngi ñaan suñuy kilifa diine comme ñoom ñun ñoom dañ leen di dégg te ñoom ñun considéré wuñ leen comme ay citoyen ordinaire te suñ ñu nee bàyyi leen ñu bàyyi ñu ngi leen di ñaan nañ wax ak président Macky Sall dëgg parce que président Macky Sall lii mu bëgg a def day indi fitna ci réew jaay doole la bëgg a def pour foqar ci élection bu fi mos a am bu fi nar a amaat ci élection yi ñu jëm parce xam na ne amatul majorité au Sénégal léegi nag processus électoral yëpp moom moo ko contrôlé di jaay doole. candidat moom yaakaar na na ko gañ mu jéem ko éliminer loolu mosut am Sénégal ni ñuy éliminer nii sur toutes les élections loolu ci nguuru Macky Sall rek la mos a am loolu nag mënatul a continuer man ci li ma gëm opposition bi nag gis nga bu ñu fi nekkee di wax waxi def lu man li ma gëm mooy dañoo dajale doole ji jàmmarloo ak Macky Sall parce que li muy def il pose des actes politiques utiliser nag administration utiliser police ak gendarmerie la justice utiliser lépp la nga am moo ko yore parce que nous avons un régime présidentiel très fort loolu nag man li ma gëm mooy réponse politique la la tous les acteurs yi dëkk bi warut a doxee ni muy doxe nii ak jaay doole gi fi am ak salfaane ak yàlla yëpp Sénégalais yi def lu ko seet ku ko neex ni moom mooy moom mooy gagné gox bu mu ko loolu mënut a continuer boo ëppee doole kay da ngay bàyyi ñëpp nekk candidat ba noppi nga bàyyi élection yi mu jaar doole mais maa ëpp doole mais maay seet ki may bëri wax dëgg yàlla nag loolu wane na doole boo ëppee doole kay da ñeme mais maa ëpp doole yow ñun ñuy ñëw di déposer seen nga ne leen manqué na dara yow préfet bi ñun la maa ngi nii yore naa yu ko remplace nga ne non non doo remplace pour jàppale mais préfet yi loolu dañoo war a xoolaat seen bopp am gàcce. loolu moo am te loolu teguwul fenn jaay doole la léegi nag man li may wax mooy mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam nañ organiser les force jàmmaarloog président Macky Sall ma nga am si depuis mars ak léegi dafa jàpp ne wutaat na fi doole man li ma gëm mooy jàmmaarloog moom comme mënta ñàkk bay booñ def ko rek parce que loolu fa lañ jëm ak moom parce que wax nañ ba sonn nit ñi wax nañ fu ne ni li muy def nii jaay doole la mais moom nangu la dellu ginnaaw ci jaay doole la nekk léegi nag comme jaay la nekk nañ kon ne parce que soo jëlee l'exemple de Dakar Barthélémy Dias du Khalifa Sall de Barthélémy Dias ni ma ko ne day taxaw xeex te bu taxawee xeex ñépp ñi gëm dëgg dañuy taxaw taxaw ànd ak moom ñu xeex kon nag bu ñu ku koy digal moom Macky Sall bu bëggee nguuram gi yegg ba 2024 na bàyyi jaay doole te bàyyi ñoo nekk candidat yépp ñu nekk candidat ñu dem élection Dakar fal kin bëgg a fal ña nekk Saint-Louis fal kin bëgg a fal ña nekk a fal mais ne man samay nit par force dañuy kooku loolu c'est inacceptable il l'a fait partout même à Guédiawaye il y a des communes où on a éliminé les listes de l'opposition loolu mënta continuer jaay doole bi am ci dëkk bi dafa war a takk moo tax encore une fois maa ngi ñaan suñu kilifa diine yi nañ dugg ci mbir mi bala muy àgg foo xam ni mosuba lay jural réew mi kon nag ñu ngi leen di ñaan ñoo wax ak président de la république Macky Sall jaay dooleem bi na ko arrêté bu ko defee jàmm am ci réew parce que comme ni toujours jàmm day loolu d'accord message bi kilifa diine yi dañ jot li ñu cëraloon nag ci waxtu maanaaka jeex na ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier mot. sama dernier mot mooy sant yàlla waxati ni euh, ma mere ku may mere nag ma mere ci dëkk li ci des nag ñu wax ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk président Macky Sall li muy def nii suñu ko bàyyee ñun waa Sénégal mm-hmm. dina yàq réew mi yàq boo xam ne képp ku ko fi wutu doo ko mën a def surtout koo xam ne yow figure nga mënatoo doon candidat yow 2024 mënoo wax a wax ba nekk candidat malgré la tàppale yi Mamour Sall wax naan ay non élection yi ci la ñuy xamee ndax ñun suñu président mën naa nekkaat candidat bi amul benn rapport y'a aucun rapport yi ak ñàkk ñoo yam ci Macky la doon candidat les élections locales n'ont rien à avec les élections de 2024 présidentielles la constitution du Sénégal moo ne n'a pas exercé plus de deux mandats consécutifs waxuñu durée de waxuñu durée de mandat mandat juróom ñaar la juróom na suñu yoon nekku ci maanaam ay gi ñaari yoon la man ngaa aye ayewaat boo ayewaatee jeex na mënoo ayewaat ñetteelu yoon loolu constitution bu waxte moo tiim ñëpp kon waxu tappale yooyu day taal réew mi bu ko fi kenn wax Macky Sall mënatu la doon candidat 2024 comme mënatu la doon candidat 2024 nañu organiser élection yi leer ci local yi bu ñu paree ñu dem législative ñu organiser élection yu leer bu ñu paree moom comme du bokk ci élection 2024 yi mu organiser élection yu leer bàyyi Sénégalais yi tànn ku mu tànn ak bu mu ci mën a doon ñu bàyyi la nga doxal bu sa mandat jeexee ñu delloo waat baat bi ci askan yi ñu tànn noonu la démocratie di doxe te ñu bàyyi jaay doole